salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen seen wàccuwaay bu wér-wér di ñaan Sénégal a fi jàmm yàgg di ñaan waay dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaar leen ñu caabi in fi ñetti mbaar fekk fi xale boo xam dafa jublu si le 22 janvier digganteem ak xale tëngeej bi ci ñu naa la. waaw ah, onze billah bismillah inna wa yàlla ginnaaw bañ sant yàlla di julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant àdduna di la béggee ak sa doom nday waaw xalil maa leen béggee bu baax di béggee sama doom nday Lamine sama nijaay daam euh, Bamba suñu grand suñu lépp mu ngi koy siyaar di ko jox wàccu waayam di béggee ku luxuma géejawaay bi yëpp surtout fi ñu nekk nii darkase gi guy faatu may nga fépp bàyyiwuñ kenn ñu ngi béggee ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu sama waa dëkk tamit joobaas pour Diak maa leen nuyu bu baax a baax ça. ci si le 22 janvier jël xale bi nga xam ne ñëpp ko fi bàyyi koo jox avance mu delloo ko ci jël mu Siteu bu Songuane gi. waa Idi ñun lamb la te ñun ay xale yoo xamante ni ñun war nañu a am lu ci lamb maanaam boo bëggee dégg-dëgg maanaam daa bokk ci yoon wi rek mais nekkul koo xamante ni moo ñuy teree dem fi ñu jëm. dégg nga ne nga ne daa bokk dafa taxaw ci yoon wi rek ñu war koo jaarale xool si kanam li li suñu kanam. mais nekkul mbër moo xamante ni dafa war bokk suñu plan de carrière dafa dafa nekk si yoon bi rek lu mën a ñaax la mais wallaahi leen lu ñu bàyyi xel ci moom. est que Siteu xam nga ko bu baax a baax ci deux. waaw comme ni mu ko waxee rek moom xam na ma xamul làmb man xam naa xamul làmb yaa ngi dégg xamul làmb laaw xam di ñaan yàlla nag suturaal ma sama diggante ak moom. ka xam nga ne ku la wax amoo adversaire da lay nax. ah moom it de ku ko ne adversaire mi koy nax te yow xam nga loolu bu baax a baax comme li mu wax ci làmb ji nee na man làmb ji leen laa ko ci ëppalee ñaawaay loolu nee na làmb amul lu ma ko ci ëppale lu dul ñaawaay non daa juum parce que nee na làmb ñaawaay laa ko ci ëppale wallaahi azim daa ngaa juum maa lépp doole maa daa ko bëre maa daa xeex te loo indi fekk ko fi. non moom moom ñee na moom ci làmb ji nii lépp lu fay neex moo koy def bu dee xeex moo koy def bu dee bëri moo koy def nee na yow nga boo xam ne dañu ñëw teg la foofu rek. làmb la la ci am ñëw taxaw sinap yaa ngi dégg ànd ak ay mbokam ñu koy sinap ak ah, moom genre boobu la rocci tuñ Sinap Wave yooyu moom looloo ko tax a jóg. champion bu mel ni Siteu nga naan ko doo jot tuñ Sinap. champion saako waaye garab yoo koy rey. champion garab waaye saako yoo du champion saako yoo garab yoo koy rey. Siteu yow saako yooko nga doo champion garab yoo moo lay rey. du champion tax nga jël ko. nee naa daa bokk ci yoon wi. itam da ngaa bokk ci yoonam kon. Siteu maa moom ma yow xam nga li tax ma jël Siteu toog 3 mois am adversaire moom boole moom. loolu tamit dafa yàgg tamit koo jox ci deux mu la xoolal ma kenn. xam nga li tax man li ma boole si da xam nga ko. waaye moom tamit dafa naqare wutal adversaire. kenn da koo xamut. mu def sept combats nga ne kenn xamul. fu mu ko defee. mu jéem bëri arène nationale spéciale. fan la ko defee arène nationale bëri spéciale. waaw. wala wala boobu dëkk boobu noonu tudd sax dëkk bu sori boobu noonu. dëkk dëkk da ngaa juum de da ngaa juum loo ci mën di dégg. Hmm. loo ci mën di dégg. na combat. waaye loo ci mën di dégg yow tam am nga combat. man am combat laa mos a dëkk rawatina bi barke yàlla caatu Dalifor moo gën a tàng moo gën a métti te dama ko maintenir. est-ce que li si caatu Dalifor mu ngi ci Siteu bu Songane jël. xam nga caat damaa taxaw di xeex moom. mais kii dama koy jàpp daan ko. moom nee na nee na seqantu na ay bëre day taxaw samp jaaga. Siteu lu mu bëgg bu ñëwee fekk ko fi nee naa la bépp na bi réew mu bëri crédit. bépp na réew mu banque mondiale lu mu indi ma wecc ko. Eh? barke Seydouna Mohamed. Siteu lu mu ñëw fee ko fi lu mu indi ko fi. bu indee ma xeex ak moom. bu indee bëre ma moom. bu indee taxaw. ma fekk ko fa duma ko daan ko kon kay am na am na lu mu indi indi woo ko non parce que man yebewuñu ma loolu parce que ma sama yebu ma ma samay maanaam samay staff yebu ma leen ba ñëw taxaw Siteu Siteu la laay taxaw ci eh, leen lu may taxaw ci eh, moom caméra tàkk rek ngay ngay ngay tax ngay wax li Siteu waaye nag bu ñu wéjee barrière yi fee ma daa ma dellu maa la dañ maa yónni yaa xam te ma taxawaal waruma gis naa dégg daa si lu ma jógee kon ci li ma jëm ma cee maye dara léegi moom xam naa ko moom yónni wuñ ko ma wax la benn affaire gis nga gaynde buy rëbb deretam di tuuru daa muy dàq mu gën a bëgg. gaynde buy rëbb. deretam di tuuru. Ah. daa fekk muy dàq li mu gën a bëgg. li may daj sama diggante diggante Siteu hmm. daj ma ko sama diggante benn bër moo la woon lamb ji mu bëgg. kon dafa mel ni journée bi moo ko jar. waaw da koo jar waaw da koo jar parce que promoteur moo jël xale yu nga xamante ne bu leen boole mu neex mu jax production ma koy nuyu passage mu ngi jàppale seen i quoi mais lamb ji loo ci mën dégg maa koy bëre maa koy duy maa koy neexal. yaa maa koy neexal ba mu neex. yaa maa koy maa ngi bëre bëre bi maa ngi xeex xeex bi maa ngi feeje feeje bi maa ngi daan daan bi ci kàttanu yàlla. ah Thiel Thiel loolu moom yomb na di. waaw yow xam li ma la wax yow doo ngaaka yow teel bee taax nga bëgg maa xam nga wax loolu rek moo tax ngay wax li mais yow xam nga bu baax kuy ci yow. moom xam naa bu baax kuy Siteu. waaw xam nga ko waaw parce que da nga bëgg ruux ma jëloon ma wax loo xamante ne. waaw bu baax la waaw comme naa si bu xeexee bu xeexee ma duma ko su bëree ma daan ko. bu duma ko su bëree ma daan ko boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la. te dañoo bëri tam jaaxaan beneen Siteu. Songaan Gueye bu Fass Mbaye Gueye soo bëree ma daan la soo xeexee ma duma la. nga ne Siteu bu. Fass. yaa ngi dégg. Eh, am na des. le 22. Hmm. dañ koy cons. cons Siteu dama koy cons. Siteu barki Serigne di nuyu walangaan sama doom day ah dem walangaan. comme koy cons. ñoo boo déggee man dama koy cons. Siteu dama koy cons di ko def lu ma neex. Eh. si ma dégg. bon hmm, Siteu lu ma neex la koy def. yow xam nga ne Siteu mënu woon Siteu warul taxaw sama yoon man. est que yow war ngaa taxaw si yoon nañ daje. si ba xam si kan metti. Siteu moom ku xam ne bu at ne prib day dox paa utal si la. bu doxee paa dajeeg paa. damay ragal mu teg meer kay. mais bu tegee paa lay teg moom teg meer paa lay teg. waaye meer lay tek ak man man mu dajeeg man wóor yàlla meer lay teg. mais ci yow français nga yow yow sa xeex bariwul. naa nekk naa nekk élevage. garaawat waaw baax na man fii laa juddoo ci digg ñàkk tang fii Gunaas. ci juddoo Gunaas tax tax lu nekk si ñun kii moo ko def si ñun Bamba. ba ñu nekk lu ndaw barke Serigne Touba. si Bamba est-ce ngi si yow. lu ko raw naa la xam benn affaire de garabu kaan ak doom yi bu gën a saf. ak doom yi a saf. jeex na. waxi mag laa lay wax ma bëgg nga dégg ma ñooy doom yi moo ñu meññ. moo yaakaar jàmm pour xamal ne garabu kaane doom yi doom yi gën a saf. is naa dégg man dañ maa yónni yaa xam ci moom barki Seydina Mohamed sama waa village dañ maa yónni yaa xam ci moom waa Géejawaay Gunaas ñetti mbaar guy Fatou Mbengue ñëpp Baxdaad amul leen loo xamante ni si war na ma mën a téye. Idi wallaahi al azim waatal de dama ñaan leen rek laa ñaan sama diggante Siteu hmm. sama diggante mais amul leneen lu ma ñaan sama diggante ak moom. sutura sutura rek laa ñaan. sa diggante ak Siteu. sutura sutura rek laa si ñaan. ci fi ñu toll nii dafa dañ laa dig njar mu sedd. non yow man sa xel daal ñun ñun ñun mënuñoo amati si àdduna lu gën a métti ka lañ dund. te mënatuñoo dund naan dañoo xone de barki Serigne Touba dañoo bëgg juróom fukk dañoo bëgg fukk juróom tëñu yaa ngi dégg te xaas bàyyi ni sunu kanam Siteu du moo ñu tere laale de. dañoo bëgg fukk juróom tëñu xaalis baa ngi suñu kam te yaa ñu koy teree laal barki alxuraanu karim di nga bëri di nga xeex loo mën a waaj na ko waaj. kon mi ngi waaj moom. lu mu mën a waaj doole ci waajam na ko waaj. lu mu mën a doole ci waaj na ko waaj. yow Idy xam nga ne yow carrément kii tàngut ñàngut. tàng na ñàng na. non léeg-léeg timis la yow boo wéeti boo boo fayee micro yi léegi nga dem tàngut. da ngaa juum. Ah. <laughs> ma seetaan. tey bee tàq rek. si te ma faas. Mbaye doomu nday wala ngaan sama doom nday wala ngaan. wala ngaan men. <laughs> Demba wala ngaan xam na ne bi ngi may dégg. sama wala ngaan doom Siteu doom nday Siteu ah, ñaari doom nday lam. wala ngaan doom nday Siteu. parce que démb ñoo toog. ah wala ngaan la moom. waaw baax na. wàllu mobilisation. waaw le 22. ci ni muy ñëwee. waaw ci ni mu daan ñëwee rek ñu ko raw ànd ak ay mbokkam xam nga ànd ak zone bi yëpp géejawaay bi. di woo ñëpp nag ñu ñëw comme ni ñu ko daan defee rek nu ko raw ñu defee ko ko di woo ñi nga xam ne dañoo maam dañoo bokk ci man muy sama am solo. man ma doomu séeréer séeréer séeréer refum. séeréer saafeen wala séeréer daa mel ni siin laa refum bii du refum. est-ce refum. bii bii du neem anda wax ne ene dece u séeréer refo. cam ram xare ah gine ah, ga jikke kada ref ceeɗo refum anda ceeɗo o ceeɗo refum pire mo andam ceeɗo refo mi andam gaga mais site refe ceeɗo mi moygo ref ceeɗo pire dire fayasi même puda genum joɓa sa genum riɓokonga an kora bokon bilahi wallahi wa taala bo riɓoga ane ko riɓum he bilahi riɓok mana ragan qaw ñaɗ kiim sax yaga roga yasam roga fi anam sutora ten ñana de ko mban sutora dongan ñana yaga bondi wela sutoro nyana hawralu kene mais kan an sita mi wagin fuuf mon gejo wo wagu sita fuuf kan mi wagin billa ge ge ge daj ma billa kan refu njaaj sita refe o magde on njaaja ref ni namo mi men ref njaaj fuuf yaga bondi mena e gole ko ko hubin dole ko mujna refo de ko wagin na njom ya sita kan mogno kan kan moyno wag njom kan hubin dole kan moyno sa kene lewna fop le 22 est ce que ya arbitre wosna ɓayde hanum wi andagi hayim no haydame sita baylo arbitre te te min tok te hajin me wo arbitre min tok billahi wallahi la ayu dak rakin warin eh, eh. mi mi ñam jiga problème combat ne def problème fa ma mais kan jang problème nem fu problème ne seen fokk ñu fi problème ngi coonutin ko jang problème mu fa problème coonutin yeey xana mos ka may problème di nee naa la man doomu séeréer laa te li may laax séeréer yëpp bëgg sama dëkk tax mais namp ma séeréer. is naa dégg man ma leen woo ci combat bu baax a baax baax waa pour Diak maa leen woo aw ma leneen lu ñoom. di si woo ku ci mel ni sama tonton Ngari maa ngi koy woo ci combat bi tonton Nanga seen maa ngi koy woo ci combat bi ab képp koo xamante ni rek doomu pour jàng doomu joobaas nga maa ngi lay woo ci combat bi waa génération 2010 sama génération maa leen woo ci combat bi waa pour Diak family di jiital ci nuyoo bi sama tonton Ndik Seck mu jël niyoo bi tegal ma ko seen loxo maa leen woo ci combat baax a baax képp koo xam ne doomu Poutier ngay ngay maam ngay sentir deret Joobaa sa yaram wala deret maa ngi lay woo di woo Marie Yvonne Marie Yvonne responsable Pastef bu Poutier maa ngi koy woo maa ngi woo képp koo xamante ni doomu Poutier nga da nga mën a jàpp ci combat bi nga dugal sa loxo gis nga combat bi dañ cee sonn barki Seydou Naam Mohamed daam joo xamante ni dafa sonn ci làmb ji muy kii taxaw lu mu am da koy def si làmb ji làmb ji ak gënal day bàyyi liggéeyam ak léppam te dafa yor njabootam war a daw dépense jox njabootam mais wallaahi làmb ji moo ko jaral lépp barki alxuraanu karim man su ma sonn benn sens ci làmb ji moom moo tax mais bu doon man ak man donc Siteu mënu maa teg benn pression ci làmb amul mbër mu mën a teg pression ci làmb parce que man li ma dund moo gën a métti làmb pur et dur. yaa ngi dégg mais daam ñoo xam ne ay doomu gor lañ ay gor ñun jur ñun bu ñu gisee ñuy sonn si ñun kon ñoom du ñu gën a bëgg maanaam. comme li ma jour man bañ may gëm daa fekk gëm naa sama bopp bu yàgg si yaa ngi man ma koy ñaanal yàlla ma ñu sutura ba ndam li ma indil ko ko moom si yaa ngi di ci woo ñëpp adduna billaahi monsieur le maire Bédé ba maa ngi ci woo Modou Gueye comprendre nga ak Abdou Salam Mbaye maa ngi woo ci làmb ji ak képp koo xamante ni Fouta Kosom maa ngi woo ñëpp Omar Sané maa ngi leen di woo ci làmb ñu jàpp ci baaxu ñun ay ndaw lañ làmb lañ am nañ ñu jàppale quoi parce que làmb dafa metti si ñun loolu am problème xaalis ñun amuñu yoruñu dañoo xonet wax dëgg yàlla mais nag ñu ngi toog suñu ngor di ñaan yàlla dafa ñu sutura rek comme ni ma la ko waxee léegi-léegi du nuyu sama tonton daam moom lépp la def si man wax dëgg yàlla sama tonton la sama lépp la sama complice la wax dëgg yàlla moto bi moo ko jënd jox ma ko am kon ko wax bañal la dara kon maa ngi ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di béggee sama doom day Lamine Ahmadou Bamba di béggee ñëpp di wax na ñëpp jàpp ci làmb ñun amuñu lu dul làmb baa ci maa ngi koy béggee maa ngi béggee ñëpp wallahi azim mais jëmm ji boo bëggee dégg-dëgg làmb ji ma ci tegoon benn baxan yokku naa si yeneen ñeenti baxan mu juróomi baxan ndax moom. benn nga am de. mais damay uri yeneen baxan yàlla day maye sens. sama fay nañ la gaar idi naaj taw féex. waaw fu ngeen toll. waaw ñu ngi ci de instant pare nañ de arbitre la xaar mu wàcce loxoom. Eh? billahi wal kitaabi pare nañ bi yàgg Siteu mbay metti woo tàngoo billahi wal kitaabi mi ngi toog si rajo ci télé yi di wax rek. mooy loolu noonu ñun li ñuy di mooy arbitre ne prix mu samp dëggal boppam taxaw pour bëree. non si te dox pas bu arbitre ne prix day yor tànku nday jëroom boobu tàllal loxom bi mel ni kuy fotowu xam na ñooy muy def mettiwul man daal lenn laa koy ñaax di ko yab na teel a ñëw te na nu mu bàyyi ñetti nit yooyu muy indi. te mobiliser bàyyi ñetti nit yooyu. promoteur bi si gàttal moom dafa soxla mobilisation. li ma koy wax mooy si ñu ñun ñooy bëre grand combat bi ñeneen ñi xamuñu leen. ñun nañ duy esaat ba mu fees dell mobiliser a ñëw teel a neexal nga bàyyi sa ñetti nit yooyu ngay àndal mooy sa ñetti gaani yooyu noonu duyal esaat bi nga ñëw. waaw na ko laa lay wax noonu ñun ñooy bëre grand combat ñeneen man lijjantiwuma seen i combat man sama combat mooy grand combat maay duy maay bëre maay neexal maa lay jàpp maa lay daan incha allahu rabbi. vaar na de damaa ragal vaar. Siteu damaa mën a yóbbu vaar moom. roccituñ boobu damaa mën a yóbbu vaar. la yaa ngi bon la 23 nu ñuy vaaree ñun ñuy zibilé nga naan vaar kenn du ñu vaar ah. moom la ñuy vaar moom Siteu mbay yow la ñuy vaar mbay demal nga toog na dem toog mbay méttiwul de. Ah. billaahi. moom li ma koy yóbbante leen la rek moom nee na ñaawaay laa ko ëppal ci laa bañ na toog xaar leneen wax jooju daf maa de. <laughs> maa naqare ah. laa ko ëppale. ba bis ba. kon ci ñu ngi lay waaw comme li ma la wax rek di sant ak staff bi ku ci mel ni Pape Tine Babacar Sarr comprendre di sant gars yëpp staff bi yëpp xam boo limee da nga jumbaa doo matal mais maa ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp di woo zone bi xam nga géejawaay yëpp tarkase ñetti mbaar guy faatu mayka gunaas ceddo mag daan wal daan maa ngi woo ñëpp dëkkandoo xam nga gunaas ñëpp ma kenn di woo sama waa confam ñëpp maa ngi leen woo ñoom bàcc lambaay am meseri am téer gars yëpp ay Abdou John maa ngi leen di xam nga di woo sama mafia lamb bi Ibou Faye mooy sama mooy président bi sama rax yaa ngi dégg waa booy bu kóol bi waa Ruquba xam ma fi waa Ruquba waa daa waa Daara jeeg fépp maa ngi woo waa Café ga tamit Abu Café Gunaas ay Serigne Diaw Abu Café Ngoma maa ngi bëgg gaa xam nga tamit xel matul ko boo limee jum baa doo matal maa ngi bëgg képp koo xam ne yaa safoo di ma ndamoo soppe maa ngi lay bëggee noonu maa ngi lay bëggee parce que man aw ma noonu. non comprendre ma noonu a ma bëgg parce que saf nit ñi yaa ngi dégg waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen béggee yéen tamit di wax Jackson na ma xaar dinaa ko a esaat bi bëral ko mu neex ma daan waaji ci kàttanu yàlla. imaam na sant yàlla <laughs> imaam imaam na sant yàlla li baax a baax. <laughs> tey sarak ñu set sarak tey loolu wax si moom. ci waaw comme li mu wax rek làmb moom yaakaar naa ni du du tey rek lañ pere làmb yàgg ma pere ay ay waaw loolu moom dëgg la xam nañ combat bu ñun sóor sóor nañ loolu quoi xam nañ ni combat bu ñëw rek bu ci topp day gën a metti. sóor allah dinañ ko yàq bu neexee yàlla waaw. Siteu ngeen sóor say Siteu. waaw ndaanaan la ci làmb mais jour boobu jour bo jour jour làmb ji. ndaanaanam ndaanaanam dina ko réer bu soobee yàlla. jour làmb ndaanaanam dina ko réer. waaw. <laughs> incha allah ñun daal ñu ngi ciy woo ñëpp suñu grand frère yeeg ñëpp ñu ngi leen ciy woo waaw ah, képp ku ñu daan jàppale rek ñu ngi lay ñaan tamit di la di la talal loxo surtout ñi nga xamante ni ñoo ñu daan jàppale ñi daal ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax a baax waaw comme ni ñu ko daan defee rek mobiliser xam nga yóbbu suñu mbër ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam bu Ngor moom ñu ngi koy ñaanal jàmm Siteu bu Songane Gueye waaw ñu ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal ja ñu ngi koy ñaanal jàmm. waaye jour làmb ja moom du am jàmm moom bu eh. soobee yàlla. waaye jour làmb ja lu leer laa la wax. jàmm ji mu ñëwee bëri si. waaw. mais maa koy xañ jàmm man si moom ñu ngi ciy woo ñëpp rek waaw. ànd ak sunu mbër xam nga gunge ko yàlla may ko ndam te incha allah day am ndam waaw. Khalil dégg nga gars yi li ñu wax mu ngi noonu Thiè ngi nii nag Thiè loo yóbbante Siteu sa waaw man comme bu caaxaan jeexee dëgg des quoi ñu ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla jàmmal. xam nga saxal jàmmam comprendre di ñaan yàlla sutura bi ma la léegi rek nee naa Siteu loxo arbitre bi yàgg si kaw moo ko bàyyi ci géew loxo arbitre nii moo ko bàyyi bàyyi ci nii. Eh. nii bu ko at defee. man ñibbi naa. nii nii ñibbi nii nii ñibbi naa lu ma gëm la te lu may doxee la. waaw di ci woo Aziz woon te xel li ma la wax rek xel xel xel ku lim juumal doo matal Aziz Dieng maa ngi koy woo ci làmb ji yaa ngi ne Abdou Salam Mbaye ni ko waxee léegi Moussa maire Béy Diba Moussa maire Béy Diba nag yow da ngaa yàgg a jàpp suñuy làmb da ngaa yàgg a jàpp suñuy làmb ñun duñ la wo dañuy ñëw ba ci yow ne la carrément lii moo fi ne yow moom suñu maire préféré nga yow yow yaa yaa yàgg a jàppale fu mu méttee fekk nga ñu fa ñuy wax làmb ji nga dugal sa baax a baax baax Omar Sané bëgg nañoo gis sa loxo yaa ngi dégg Modou Gueye Yaba bëgg nañu gis sa loxo ak képp koo xamante ni rek doomu gox bi nga ñu la ci woo di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla dafa ñu sutura ba làmb di bëggee waat ñëpp di siyaaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay